waaw euh, ñi ngi ba léegi ci Sarsara ci jumaa jumaat mag nga xam ne murid di ñu ngi koy tabax muy euh, béréb bu fàttaliku soxna Ayda yaa ngi sa mbooloo am na ñu ñëw waaye am na ñoo xam ne tamit am nañ gànt ba ñëw ñu am na ñoo xam ne tamit dañoo xaw a ba yëg-yëg nga am ci teewaay bi jataay bi nga xam ne nii mën naan wax ne mbooloo mu takku dëgg nañ Sénégal ak yeneen béréb ngir ñëw fàttaliku nekk ci Sëriñ Tuubaa nekkoon ban yëg-yëg nga am xanaa sant yàlla rek sant yàlla sant sëñ Modou Moustapha ma boole ñoom sant di ñaanal sëñ sëñ Mbàkke Mouhamed yal na yàlla yokk ay leer di sant mbooloo mi ma àndal yëpp bu ma ci limee kenn rek juum ñëpp laa ñëpp laa laa sant ak ña nekk Sénégal muy ndey béy te tawat te mënul ñëw te mu métti la ko maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla wéral bu déwénee mu ñëwaat boo ko su ma ko santee rek sant naa ñëpp. di ñaanal ñi ñëwagul tamit yal nañu ñëw ak jàmm ñun ñi fi ñëw tamit yal nañu yokk jàmm ak salaam ak da ànd koog daayira xidma Masaalikul Jinaan yëpp xale yu góor yi su ma ci lim eh, kenn rek Cheikh Fall ñëpp lim naa ñëpp. Euh, euh, siyaaru ren bi boo ko doon euh, xayma at yi passé woon. siyaare siyaare ren bi moom amul fenn parce que kiñ ko tuddee la muy muy sëñ Baara. sen Baara mi ko tudde daaw ne tudde ko sëñ fallu daaw jeeg sëñ Modou Moustapha waaye bu ren bii bu sëñ Baara bi moom amul fenn billaay ñëpp ñëw presque Sénégal kenn desul région yi Sénégal kenn desul ren waaw. mu mel ni mbooloo mi nga àndal Serigne Sidi mi nga xam ne moo fi toogal xalif général de Mouride waaye jiite liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci gànnaar ñëwoon na seet nga ak sa mbooloo démb fi nga dal am na kàddu yoo xam ne nii kàddu yu seere kàddu yu ngërëm kàddu yu cant yoo xam ne euh, jooyal na ko jëme ko ci yow. loolu est-ce que mën nga ko jot li mbooloo mi xam ne. waaw nga boor te teewlu. waaw ah, sëñ moom nee ba mu ñëwee démb ndeysaan damaa kontaan damaa sax jooy parce que moom nee na liggéey bi may liggéeyal daayira ma jaara Masaalikul Jinaan de koo ànd ak man na moom da koo ànd ak man xam nga yi bari nañu waaye man dong la wax ne yow damaa ànd ak yow ci liggéey bi. Ah, ah, waaw muy sëñ Sidi waaw. li muy bari bari nee na ma yow sa liggéey daayira maam jaara masaalikul janaan dama ko ànd ak yow kon nag loolu jar na sant sant ak soññee ak soññee la waaw jërëjëf lan ngay gën a dénk mbooloo mi nga àndal ñi teew ak ñi teew ah, xanaa xanaa ñu gën a góorgóorlu rek ñu xam fii rek lañu am muy Sarsara ak Touba ak Grand Bassam ak Gabon sëñ Touba fu mu taxawoon rek war nañ faa dem